rasuloola ma di yonga jam la ilaha illallah ñoo ngi leen di dalal ci seen benneelu numéro nemmeeku tey nag ñoo ngi wàcc ci commune Bambilor ci département bu Rufisque ci dëkk bu ñuy wax Gorom ñëw fi nag ngir nemmeeku se waa daara nasrullahi isa jaa nasrullahi wal fatx isa jaa bés bu dikkee nasrullahi ndimbalu yàlla kon baat bi foofu la jóge ci nasrullahi donc baat la bu jógee ci alquran te foog naa ku ci nekk soxla nga ndimbalu yàlla e sang bi boo xoolee bis bu jot mi ngi ñuy fàttali baat boobu ci saa bu ñu jullee mu ngi ñu naan nasrun min allahi wa fatxun xaribun wa bashiril muminin nasrun ndimbal minallahi bu tukkee ci la yalla wa fatxun ak ubbe aji jege kon nak batu nasrullahi e eh, fofu lañu ko jële ñoo ngi def pause premier pierre daara ji le 11 décembre 2011 def ouverture des classes ci atum 2014 tàmbale ko ci préscolaire ak CI li ñu taxa jogit moy dimbali askan wi tax nasrullah am taxaway bo xamanteni ni li ka taxa jog deug deug deug du ut alal du ut kom mais li ka tax a deug deug moy askan bi dimbali askan dañu doon def nak at mu nek ñu tabax ben classe ba tay ji mu am cycle primaire complet ak daara interna li sabab sosug école bi professeur Seydina ababakar lay Bass fësal na ne mënul wax lepp ci penc mi waye bokk na ci liko andi moy li nek jangale kat tay visionnaire ginnaaw jàngalekat lañu ñu gis ne eh, lekkool moderne en tant que telle am na ay insuffisance waaw ndax nit ki damay li may faral di wax ne école néew na ñu jàngal nit ki li mu soxla lépp ci àddunaam la ci jiitu mooy diineem te nag nit la mu gën a soxla ci àddunaam mooy nu mu jaamoo yàlla mooy diineem école bi dañ ko ubbi rek jàngal nit ki nasaraan jàngal nit ki tubaab jàngal ko ngir mu am métier bu muy mën a yëngatoo ci àdduna loolu baax na waaye loolu it am na lu ko jiitu mooy nu muy jaamoo boroomam ndax yàlla suñu mission ci kaw suuf mooy ñu jaamu ko kon nag fexe ba tamit xale bi xam naka lay jaamoo yàlla dafa am solo e, waaye it jàngal xale bi nite loolu dafa mos a yitteel ndax e, école ñaare li ci ëpp ci ni xale bi war a comporté woo diggante ak boppam war ko comporté woo digganteeg société bi ak digganteeg nit ñi maanaam duñ ko jàngale na mu ware alors donc loolu moom moo ñu jox vision wu E ñu taxawal e, Nasrullah di jàngale li éducation nationale di jàngale waaye di jàngal xale yi seen diine di leen jàngale seen pas-pas bi nga xamante ni gëm nañu ko waaye di leen defal ci ni ma ko mën a waxee ngir ñëpp mënoo dégg comprendre développement personnel maanaam ñu leen di jàngal nite di leen di jàngal jëflante nit ñi ngay tooge nit ñi ngay waxee ah, nit ñi ngay e, ci àdduna donc yooyu yëpp dañ leen koy jàngal Euh, lu ko mel ni ki intelligence émotionnelle lu ko mel ni ki euh, intelligence financière sax dañ leen di jàngal détails yi nga xam nit ki chaque jour mi ngi koy soxla loolu nit daf ko war a xam donc mooy les moindres détails nit ki da ko ko war a jàngal ci mbiru àddunaam donc noonu la ñuy jàngale xale yi bu mu fi duggee seen néeg niñ koy ranger wax ko ne ko suba li nga soxla sa yére balaa ngaa tëdd génne ko say dàll nanga ko teg sa brosse à dents waaye doo suba ba noppi naan yére bi laa war a sol samay dàll fu mu nekk eh, samay brosse à donc yooyu yëpp da nga ko koy jàngal ñu xamal leen ni nit ki journée bi da ngay def sa bilan journalier xool li ci positif xool li ci négatif xool li nga ci amélioré envisager nag sa journée ëllëg lan nga ci war a def donc yooyu dafa di yoo xam ni ñaari duñ ko jàngalee ci ci ci école te nit ki daf ko soxla xale bi jàngal ko ni muy jullee jàngal koy ibaadaatam Euh, donc yooyu dafa am dafa am solo an abi hurayrata radiallahu anhu haala anna nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni laalallaha yàlla rëbbana almutasabihina rijaale bin nisaa góor guy nduru nduru lu jigéen wal mutasabihina nisaa bi rijaale wala jigéen guy nduru nduru lu góor rawaahul buxaari buxaari solo ci daara Nasrulaay dañu fay def enseignement général di fa def itamit franco-arabe mais aussi enseignement religieux waaye aussi dañuy def ay renforcement ci jàng làkk wi nga xam ni mooy làkk anglais waaye itamit lu jëm ci informatique واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون xalaat bi nga xam ni ñu bari am nañu ko jëmale ko ci franco arabe muy ne ki fay jàng ay chance am bari wëpp mu tekki ci àddina googule xalaat professeur ak ñàkk xam rek waral waa xam nga loolu ñàkk rek te waxuma la dara mais boo xoolee Sénégal ñi fi ëpp alal tey ci daara yi lañ jóge ci daara yi lañ jóge tey ñoo fi ëpp alal ñoo fi ñooy embauché ingénieurs yeeg techniciens yi di leen fay par weer kon nag loolu ñàkk xam la nit dafa am loo xam ne dañ koy def ci yow esprit d'entrepreneuriat waaw loolu aajuwul ci njàngum nasaraan wala njàngum araab ci nit ki lay doon loolu nag boo ko defee ci nit ki rek tel ko responsabiliser c'est pas pour rien dans le cadre développement personnel au niveau de Nasrullah ci euh, enseignement leadership. Nous leadership gouvernement scolaire ils ont un président ils ont des ministres Nous ont di à l'environnement di ont initier initiative personnelle ils ngi des activités agricoles un jardin de l'école Ils ont tey ku ci comme sunu benn intelligence financière xamal leen ni nit ki naka ngay fexe ba ëllëg nga am euh, sérénité euh, financière et cetera et cetera donc kon yooyu aajuwul ci école bi mais yar la booy def ci nit ki rek waaw nit ki am na yar boo xam ne boo ko defee ci moom ëllëg ak si biir fu mu mënti nekk dafay débrouillé wu fu mu mënti nekk il va s'en sortir. Bonjour, je m'appelle Aïcha Cham, j'ai 10 ans et je fais la classe de CM2. Je suis présentatrice et membre de la cellule de communication c'est Hadija, présidente de la cellule, Zeina, ministre de l'hygiène et de la santé, Mamhari, euh, ministre de l'environnement, Maimouna, ministre de l'éducation, Sarah, ministre de la sécurité et Siré, responsable de l'école. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Hadija. Bonjour, je m'appelle Khadija, j'ai 9 ans et je fais, la, et je fais la classe de C2. Je suis présidente de la cellule de communication et aussi de l'école Nasrullah. Et comme je suis la présidente de la cellule de communication, je dois dire à tous les élèves d'arrêter de monter sur les arbres et aussi d'arrêter de monter et aussi arrêter de courir. Dans la classe aussi, on doit arrêter de manger ou même de courir parce que si vous courez, vous allez vous allez tomber et vos parents vont venez amener des problèmes à l'école. Alors, mon équipe et moi, nous sommes là pour vous dire d'arrêter de faire tous ces dégâts et aussi d'arrêter de gâter les plantes. Les herbes et les plantes sont en fait pour vivre parce qu'ils sont comme les humains. et se nourrir comme les humains. Alors merci de m'avoir écouté, moi et mon équipe. École B, élèves ñoo ngi am taux de réussite ci CFE maanaam certificat de fin d'études élémentaire bu toll ci cent cent ci internat bi ñi nga xam ni ñooy élèves yi ñu ngi toll woon ci quatre-vingts pour cent maanaam en tant que franco-arabe ñoo gën di résultat ci zone bi. léeg-léeg waajur yi euh, seen àq dëgg dëgg dëgg la leen war ci xale yi duñ ko xam. waaw parce que ñu bari dañuy jël seen doom jox la rek dem te xamuñu ne résultat ngir mu am fa wayjur wi def la mu war a def jàngalekat bi def la mu war a def xale bi def la mu war a def boo xoolee dëkk bi ñu nekk ak milieu bi prix boo fixé rek ci di ko laaj wayjur yi ci fin du mois jàpp nañ ne loola dafa cher te gaamu école bi ak qualité bi la enseigner mën naa ne laaju ñu le quart de ce qu'on devait demander aux parents ndax dañu tenir compte nag ci conjoncture bi waaw kon nag euh, ni école privée yëpp di rencontrer la plupart ñi nga xam ne ils font du social ñun moom la ñu rencontrer mooy vraiment des problèmes de moyens waaw ndax tey si tey bu fekkoon nii accompagner nañu ni mu ni mu ni mu waree dinañ produire résultat yu gën yi nga xamante ne ni moom la ñuy am. إنك لعلى خلوه عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله لا إله إلا الله Allah, Allah, Allah, Allah,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 ثم دنا فتدلى وكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى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 العصيان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب damay gërëm wa jamalay events di len sant bu baax et tay di len ñaanal ndax it taxaway bi ñu am ci diine ji jël seen xam-xam jël seen alal jël seen jot defal ko addiya sang bi ci wesaare wotem bu mag bu tedd bii daara Nasrulaay mu ngi nekk fi ci gorum 1 ci quartier wu képp ku leen bëgg a jot mën nga leen contacter ci numéro yi cinquante 151 cinquante 54 wala ci 76 387 87 59 ñoo ngi leen di jot dig daje ci beneen numéro wu nemmeeku.